julli mooy ñaareeli ponk ci lislaam euh, maanaam diine ji dañ koo tabax ci juróomi keno keno bi ki njëkkoon mooy tudd baatu seede bi ñaareel bi mooy taxawal julli juróom yi julli moomu mbooleem xeeti jaamu yàlla yu ñuy jaamoo yàlla moo ci gën a foor bam may tudd baatu seede bi foor gi mu ci gën a foor tax na mu làmboo ñett yoo xam ne moom rekk moo ko am bi ci njëkk xeeti jaamu yàlla yépp ci kaw suuf lañ ko farataalee te jibril la ñëw indil yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallama xibaar bi ba mooy julli julli moom yonentoo demal boppam ba place boo xam ne menn malaaka musut faa yegg benn yonentu musut faa yegg kenn musut faa yegg kudul moom suñu borom bi yëkkati julli jox ko ko waaye ponk boo waxati ba ko yàllay farataal jibri rek a ñëw moo waral keroog ba muy farataal xoor weeru koor li muy foor foor jibril la ñëw ne ko sa borom nee na kutiba alaykum siyam kama kutiba ala alladina daal di dem naka noonu bi yàlla namee farataal joxe azaka jibril la ñëw fekk yonantu bi ci kaw suuf sallallahu alayhi wa sallam ne ko sa borom nee na خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها دادي ديم نك نونو بيم نامي فراتال حاج جبريل نيو فك يونت يالا محمد صلى الله عليه وسلم سي كاو سوف نكو سا بروم ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا دادي ديم حتى باتو سيدي بي صاح بيكو يالا نامي فراتال جبريل نيو سي كاو سوف واخ يونت بي نكو سا بروم فعلم انه لا اله الا الله waaye nag bi yàlla na namee farataal julli jibril moo ñëw fekk yonantu bi ca Makka mu ànd ak moom yëgal ko ci ba yogi ñu tuddee buraax nga xam ne dafa boole daw ak naaw te gaawaay ba mooy bët ba fu bët ba tege rek tànk ba tege fa waaye ba ñu àndee ba yegg ca baytil muqaddas mu yeew ba ja yonantu ba fekk fa yonantu yëpp ñu koy maanaam tertu dañu demee mu jiitaleen ak julli ñaari rakka la woon yonentu ya def juróom-ñaari sàppe ñun yónni ña ñoo nekk ñetti sàppe ya ñun yónni hut ña ñoo nekk ñeenti sàppe ya mu paree nag yonentu yàlla Isa ne ko Moussa kon ne ko xanaa dang ñu waar mu ne li ma leen wax bariwut mooy xayrukum xayrukum li ahlihi wa ana xayrukum li ahlihi ki gën ci yéen daal mooy ki gën ci njabootam te man maay ki gën ci sama njaboot ci ñëpp léegi ci la dépare jël lu ñuy tuddee mi'raj mooy lu rafet la buy ab jullit di sukkuraat moom lañ koy wan ba bu ñuy not ci rooxu ga sax du ko yëg yàlla nañu ko yàlla wan ci la yonentu ba dem jéggi juróom-ñaari asamaan yi dem ba ci sidratul muntaha jibril ne ko fii laa mën a yem mu ne ko ah, yaatale ab xarit jëlee ko màkka jaar ak moom ci xàll bi jaar moom baytil muqaddas xéeg ak moom asamaan yi présenté ma yonentu yi ñara ñëw ba fii nga nar faa yem mu ne ko su ma jéggeetee benn séqi rek leer ak aras dana ma lakk comme ni safara yi lakkee njarwañ wa ma minna illa lahu maqaamun maalum kenn ku ngeen ci ñun dafa am maqaama boo xam ne fala yem fuñ kam fii mooy suma maqaama fekk sidatul muntaha mooy daytul waay gi nga xam ne dara musul bàyyeekoo ci kaw ñëw paase ko dara musul bàyyeekoo ci suuf tamit ñëw paase ko mais nam yonentu yàlla muhammad rek sallallahu alayhi wa sallam moo mos a bàyyeekoo ci kaw ci suuf kon dem paase foofa mu dem ba paase raf-raf paase maanaam pied yu bëri ba daal bu doon yàlla am buntu dem na ba ca buntu ba mu seet nag ne yàlla nuñ ko war a nuyoo naan bu ma ko ne asalaamu alayka day mel ni yàlla góor la su ma ne ko asalaamu day mel ni yàlla jigéen la ci la yàlla tàbbal ci xolam ba ne ko nuyoo ma attahiyaatu lillahi zakkiyaatu lillahi attayibaatu salawaatu lillahi loolu la yonent bi nuyoo yàlla yàlla fay ko ne ko asalaamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakaatuhu malaaka yi nga xam ne ñoo xeen arash ak yàlla ga nag ñoom tamit bëgg ci am barkeelu moo tax ñoom ñoo ca yokku asalaamu alayna wa ala yalla na ne ko nuyo bi nga nuyo moog ni mala fayek li ci malaaka yi yokku suma julli gi malay jox su ngeen deme ba xam ñaar rakka bu ngeen ni togg wax leen ko su ngeen deme ba julli ga di jeex timit su ngeen ni wax jeexé leen ko manam tejé ko julli ga fofa nak la borom bi yëkëti juroom fukki julli jox ko yalla muhammad sallallahu Alaihi wa sallam yonentu bi ci la ñew nak ba ci juroom benneeli asaman musa la fa fekkon musa laaj ko lu sa borom faratal ci yow mu ne ko juroom fukki julli mu ne ko demal mu wañil la ko yonent bi ci woyofam muy dem yàlla wàññi ca juróom mu ne ko bëri na ba tey ñeent fukk ak juróom bëri na muy dem muy wàññi muy wàññi ba mu des juróom foofa nag Moussa ne ko juróom bëri na sama xeet wee xëppoon doole sa xeet wi téeméeri junne yoon te ñaari julli rek lañ daan julli ñaari rakkaa suba ñaari rakkaa ngoon te dafa tëxoon yonentu nag ne ko xeres naa kuñ joxoon juróom fukki julli ngay wàññilu ba ci juróomi julli may demaat di wàññilu ci lañ bokk ñaar ñëpp dégg kàddoog yàlla mu ne وخففت عن عبادي وهي خمسون واي وهي خمسونة ندال تيونو برك لا واني واي سما دوغال موم دار رمونو كو سوبي نخ ما يبدل قول لدي لما قص واخ رك لولا لا لما قص تيميت ديف نونا لا سوكو ديفي كون داما لين واغنيل تيونو بي واي كو جولي جورومي جولي داغا خام يولا كو جولي جوروم فوكي جولي لوكو ديف موي جولي غوني داني لاكاي فاي فوكي جولي سوكو ديفي نك مو نيك جوروم فوكو موتاخ القران من جاء بالحسنه فله عشر امثالها ndax képp ku def benn rek yàlla dafay bu ñaa yeneen juróom ñent mu fekk benn ba muy fukk kon ku julli juróomi julli da nga xam yoola ku julli juróom fukki julli yonent bi daana ko jame ne leen di laaj kenn ci yéen bu amoon benn déeg ba doon léegi nga ne benn piscine mu nekk ci këram bët bu set mu fexe ba sangu juróomi yoon dama leen di laaj yéen ñi may déglu ndax kooku dana tilimam déet saxaaba yi ne ko déedéet ko kay kuy sangu juróomi yoon par bis kay du tilim mu ne mu ngoog juróomi julli yaa ngoog ku koy def tamit par bis di ko sàmm na ko yàlla bëggee di ko defee nañ ko bëggee su boobaa tamit doo am bakkaar ndax julli ku nekk ak moroomam bakkaar bu fa dox rek boo julli xaatee loolu dafa koy effacé kon nag damaa bëgg a wax ne julli rek moo xam jaay ñu yëkkati ko jox ko yonentu yàlla muhammad direct fu malaaka mosta dem maanaam yonentu musut faa dem moom kenn nag boromam mu yëkkati ko jox ko ko kon loolu tekki na maanaam foraayu julli ñaareel bi julli moom ci boppam mii ñu a jàng nekk na ponk boo xam ne bi maanaa par na labal mbooleem ponki lislaam yi moo waral boo jullee xaj nga boo jullee joxe nga asaka boo jullee xoor nga boo jullee tamit tudd nga baatu seede bi kon nag xamul benn ponk lislaam bu duggul ci biir julli moo waral boo defee def nga lépp fu fan la baatu seede bi duggee ci biir julli da kuy julli ku ne faaw da nga liqaam kuy julli ku ne faaw da nga taaya kuy julli ku ne faaw da nga def takbiratul ihram ak yeneen kabaar ya te kenn mënul taaye te waxuloo ashhadu an laa ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah kenn mënul maanaam liqaam te waxuloo loola naka noonu tamit boo ne woon liqaamuma taayihuma ñu ne la foog nga kabbar xarmal te àlla ta kabbaru xarmal ihram mooy allahu akbar allahu akbar na boo ko farañ fàncee tàllal ko firi ko moogal moog laa ilaha illallah rek lay junji benn rek la moo waral kon baatu seede bi dugg ci biir julli ay yoon naka noonu xoor mi ci biir julli xoor du dara lu dul bàyyi ba hi naan ba jotee li ko doree fi fajar xaree ba fi nga jant bi soyee naka noonu bi nga demee bay julli lekkoo naanoo joteewoo fi nga kàbbaaree xarmal ba fi ngay sëlmalee yow nag fi nga kàbbaaree xarmal mooy xaruk fajar ci yow fi nga sëlmalee mooy jant bu so ci yow moo waral kuy julli doo lekk doo naan doo jotee ku xoor doo lekk doo naan doo jotee naka noonu tamit asaka dugg na ci biir julli asaka du dara lu dul lu ñuy génnee di ñaar fukki xeet lañu war a génnee asaka ci masabu Malik nga yëkkati ko jox ko juróom-ñetti xeet yi alquran tudd ne innama sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina ba ca laaya ja yow nag bi ngay julli joxe nga asaka ju gën a foor alal ndax kuy génnee asaka alal rek nga mën a joxe benn muy ay gàtt wala maanaam muy dugub wala maanaam muy maanaam xaalis ak yeneen nga ci aju yow nag da ngaa yëkkati lu gën a foor xaalis joxe ko bi maanaa te li nga te yow jox nga ko ñu gën a yaatu juróom-ñetti nit loola mooy lan lu gën a foor alal mooy lan mooy jàmm ndax kat alal bala nga koo mën a alaloo day fekk jàmm nekk fa waaye foo dégg ngay talla nee na daf fekk jàmm nekk fa ñaari soxla bu ñuy xam daal jàmm fa nekk su ko defee nag jàmm jooju yow nga yëkkati joxe ko asaka ci jullit ñi joxoo ko maanaam juróom-ñetti ñi alxuraan waxoon waaye yow danga nga koo jox mbooleem jullit bu la mos a jiitu di julli ca dara ca aadama ba fi ngay jullee jox nga ko tamit jullit buy jullandoor ak yow ba bi ngay sàngoo suuf waaye joxate nga ko tamit bépp jullit buy nar a julleeti fekk bay àddunay tukkee moo waral bi ngay taayee nga ne assalaamu na maa ngi yëkkati asaka ju ñu tuddee jàmm di ñaan yàlla sotti ko ñun jullit ñi jullit ndoor man waaye bu mu ci xem na ko sotti tamit wa ala ibadillah saalihin ak mboolem jaami yàlla yu yiw yi boo ne nag ñu doon julli ñu jiitu ñu dugg nañ ñu julli ak yow ci sa jamono dugg nañ ñu julli yow ba bay àddunay tukkee tamit julli nañ dugg nañ kon nag maanaam asaka ji nga joxe ci julli moo gën a foor asaka ji nga joxe tamit ci alal asaka ji nga joxe timit ci julli mo gëna yaatu ñi nga ko jox mo gëna yaatu timit ñi nga xamne ñoko doon jël ci walu asaka ja ci alal ja ba ke teggu ba ngay haj dug nga dugal nga haj ci biir julli ndax li muy tekki moy al rek mais li muy tekki shar'an moy jublu ak yalla gele ci makkatul mukarama ngir joxe farata mo waral yow timit da ngay julli jubluwaay yi bari nañ fi waaye da dahi jublu way yépp dem jublu ju kaabatul musharrafa motax al qur'an la wa haythu ma kuntum fa wallu wujuhakum shatrahu fu ngeen man di nekk su ngeen di julli na ngeen baxi jubluwaay yëpp te jublu kaabaak yàlla ga kee dafa koo jublu woon di jooxe farata yow tamit da nga koo joox da koo julli tamit da nga koo jublu di jooxe farata ji gën a for dañ doon joxe te mooy maanaam ak julli kon nag dama bëgg a wax ne daal ponki lislaam yëpp rek julli dugal na leen moo waral même bu leen moo waral ki ki yàlla may mu war a mën a julli te julliwut dafay perte li ko waral boo ko seetee eh, téeméeri nit ñoo gis ci misal, euh, boo ko seetee 30% yi ño ci mëna joxé asaka ta sax bu taxé bu maté 30% pour cent baykat yee tax waaye bu fekkoon tay dang nga génné baykat la lañuy bay daanaka ñuy joxé asaka passé wuñ manam 10% la ca dess lépp dañuy laaj asaka ko kooki ku ko laaju tamit boko joxé man na ko lekk kon nak kooka bu jullikut perte na ndax ko xamné mëno joxé asaka ndax li nga am asaka waru waru warut ca kon kay yow julli nga dese bo jullit perte nga wala ñettel bi moy jaamu yalla gi nga xamné tënkuñ ko ci euh, maanaam wér tënkuñ ko tamit ci am jaamu yàlla goo waxati ci ponki lislaam yi lu dul baatu seede bi bu dul julli rek dañ koo tënk ci wér wala ñu tënk ko ci am-am léegi-léegi tamit ñi boole tënk ko ci ñaar yëpp boo seetee lu mel ni aj màkka soo wérut mënuloo dem xataa doonte am nga paas kon day laaj nga boole wér ak maanaam am-am waaye bu fa am-am newut wér newu fa wala ñoom ñaar ñëpp nekkuñ fa aj wàcc na la comme dafa taxoo ak yow ba di ngay dee. bu dee tamit lu mel ni xoor weeru koor wéeru ko fa bàyyi waaye koo xam ne boo xooree balaa 10 heures nga daanu xëm koo ko ba médecin bi xamal la ne mënuloo xoor kooku tamit mën ta xoor kon kooku wéeru ko fa bàyyi naka noonu lu mel ni joxe asaka am am ma ko fa bàyyi mais tey ku amul nisaab nooy mën a génnee asaka waaye julli nag mooy jaamu yàlla gi nga xam ne keroog ba nga ñàkkee keroog la la gën a war keroog ba nga wéradee keroog la la gën a war xataa boo demoon tey sa la lalu hôpital ba ñu opéré la comme yaa ngi ànd ak sa xel rek terewut da ngay jullee noonu ca na nga manee xataa boo doon mat lu dul xëf ak xipi rek nga man waaye sa xel maa nga fa tamit jullee xal noona ci sa xel ne yéene naa def naa kab takbiratul ihram jàng naa fatiha jàng naa saar rukkoo naa sujood naa taaya naa sëlmal naa noonu ngay jullee ci sa xel ba julli ga jeex kon nag dama bëgg a wax ne yeneen jaamu yàlla yëpp yooya ko fi bàyyi ba mooy maanaam julli moom tënkuñ ko ca yooya ñeenteel bi may tëjee waar woowu nag door a dugg ci firi mi julli moom ci boppam xeex naag ponki lislaam yëpp daan leen ba mooy li ñuy tuddee tuddubaatu sedd bi rek la mënta daan waaye julli daan na asaka julli daan na xoor weeru koor julli daan na tamit xaj màkka fuqahaa yi d'accord nañ ne képp ku xooroon ba bëccëg jot nga bëgg a jug ngir julli tusubaar ba nga demee rek daanu xëm ñu seet ne kii kat dara jàppul ko loolu xiif rek wala mar kooka sharia may na ko mu naan ba mën a taxawal julli tusubaar gi bu demee ba koor ga passé mu fay benn fan booba kon nag koor gi nga doon xoor ba xegg ci tusubaar mbaa tàkkusaan julli guñ ko war a julli ngir war koo mën a taxawal te yow xiif teg la mënu koo taxawal wala maanaam mar yàq nañ ko ngir taxawal julli kon julli daan na maanaam euh, euh, maanaam euh, xoor weeru koor naka noonu daan na joxe asaka ku dentooñ tey lu mat nisaab ci misaal bu doon ñaar téeméer ca ña jàpp ne moom la denc ko bañ ne suba la ñu war a génnee asaka nga toog dëkk bi di jaay ndox robinet yëpp tëj ñu ne ku bëgg a njàpp dañ lay jaayam ndox ko te yow ñaar téeméer yi nga war a génnee suba rek moo fi nekk sharia may na la nga jël ca juróomi dërëm mbaa fukki dërëm mbaa ñaar fukk dem jënd ca ndox ngir taxawal jàpp ak tusubaar gi wala gu tàkkusaan gi wala gu timis gi wala gu gexe gi comme nag manqué a ñaar fukk mbaa juróom matatu nisaab su boobaa nag yow dootoo génnee asaka yi suba ji mais beneen déwén la jëm gannaaw bi matee kon damaa bëgg wax ne asaka juñ dencoon ren ba déwén ba mu des benn fan rek ñu waroon ko génne suba njàppal gexe gu tey yàq na asaka jooja kon loolu day tekki foraay ak julli li xëpp ci fuqahaaw yi rawatina maaliki yu ne yi d'accord nañ ni kuy xaji màkka nar caa faataale waxtu julli ci sa yoon ba doo ko mën a julli xaale ñu ni ah jar na dem ngir